بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ginnaaw bu ñu santee sunu boroom subhanahu wa taala ñu ngi koy bàkk di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne sunu boroom mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu boroom dëkkee dotti waamam xéwal ci kaw yonentu boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain jotaayu tey bi insha allah danañ ko def ci tomb boo xam ni bariwaana ci ñun ñoo xam ne dañ koy faral di sàkku ñu def ci ay leeral ndax aajowoo goo xam ni aajowoo nañ ko ko ci waxtu yi nu toll muy tomb boo xam ne dafa jëm ci wàllu yar yar nag buñ ko waxee dafa am am maanaa ci dégginu doomu aadama yi waaye am am maana ci dégginu lislaam tomb bi maa ngi yaakaar ni am solo si tax na dina ëpp benn jataay ndax ndaw yi dañ koy aajowoo mag yi aajowoo ko góor ñi aajowoo ko jigéen ñi aajowoo tomb la bopp ñoo ngi ko të tëggal boppam kayfa aadattu waladi naka laa waajalee sama doom ba mu mel ni mel nga xam ne ci biir tomb boobu am na beneen boo xam ne mooy xol ba dëgg mooy kayfa rabbaytu waladi naka laa yaree nag sama doom laytaay gi nga xam ne mënul ñàkk ma tàmbalee ko ca loola ginnaaw yëg gunu yëg ak des gannaaw wala échec boo xam ni am nañ ko ci yar sunuy njaboot te loolu am nay sabab waaye sabab yi am na yu koy saafara mën naa feeñ ci jataay yi nga xam ne insha allah maa ngi ragal dana ëpp benn ba ñetti jataay laytaay bi mooy ñu ànd xam ni borom bi subhanahu wa taala day dafa sàkk doomu aadama yi ci kaw suuf ngir ñu xam ko waaye buñ ko xamee nan ko jaamu loola bokk na ci ay tegtalam aaya jooju suñu borom di wax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun bindu ma nit ak jinne lu dul nañ ma jaamu nañ ma wéetal ñaareel bi ñu xam ni mboolem yiy dukkat ci kaw suuf doomu aadama moo ci gën moo ci gën a tedd loola bokk na ci ay tegtalam ci alquran wa laqad karramna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila beneen bi ñu xam ni borom bi dafa def aji gëm yàlla moom mooy kii nekkal sunu borom ci kaw suuf ngir di ko fi taxawalee lim bëgg di ko tereel li muy bañ bokk na ca aaya ya koy saxal borom bi wax ba mu waxoon daawud ya daawudu inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq bokk na ci mbir yi nga xam ni war nañ koo xamit mooy borom bi bim nu wàccee ci kaw suuf booyaluñu rek bàyyi ñu waaye daf nu rëddal ni ñu war a dundee muy téere bi mu wàccee ci ñun di alquran nga xam ne fiihi hudan wa nuur wa shifaun lima fi sudur loolu ay aay yu bari da koy firndeel ci alquran borom bi di ñu delloo ci alquran ngir téere la boo xam ni mi ngi làmboo leer làmboo jub làmboo gindeeku ah inna hada alqurana yahdi lilati hiya aqwam bokk na ci yooyu ñu xam ni alquran dafa ñëw pour yare yar giñ na ma waxtaane alquran dafa ñëw pour yare kon nit ki buy jàng alquran dafay jubbantiku waaye dafay yaru moo tax sunu boroom di wax ni kunu rabbaaniyiin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun te rabbaani moom nit du ko nekk mukk lu dul dafay jàng alquran di ko jëfe ba borom bi defal ko mu am ci ay cër lu war a mën a tax mu nekk rabbaani wa dalika bi sababi tarbiyati ljaad loolu sabab la yoo xam ni day tax nit ki baax ci jamono ju mujj jii ñu toll nag dañoo gis mbooleem xeeti àddina bi ñu ngi jàmbat lu jëm ci wàllu yar xale yi yarawuñu xale yi amuñu ab yar léegi kenn yaratut léegi kenn yarootut façon bu nekk yaa ngi dégg xeet yi di ko waxee muminihim wa kaafirihim na ñu gëm yàlla ñi ngi wax loolu waaye ñi weddi suñu borom it ñi ngi wax loolu loolu am na ay sabab yu bari yu ko waral jàpp naa ni toogoon di wax sabab ya rek mënees na cee jël waxtu yi ñu am yépp te du jeex waaye am na yooyu buñ ko ca tànnee dana nekk niitukaay ngir ñu xam ne lii kat sabab su rëy la su tax yar amatut léegi bi ci njëkk mooy ñu xam ni borom bi subhanahu wa taala daf ñoo sàkk te booyaluñu waaye daf noo indi ci kaw suuf ba noppi coloniser ñu moo ñuy digal ñuy def moo nuy tere ñuy bàyyi huwa alladi anshaakum min al ardi wastamarakum fiha kon xeet wi ak wum mën a doon duñ mën a baax lu dul dañoo delluwaat ci njàngalay buur boobu nga xam ne moo nu fi indi te moonu moom kon biñ commencé delloo gannaaw njàngalay lislaam ci lañ commencé gis jeexintal yi kooku benn la ci tomb ya ñaareel mooy anna faaqida shay'i la yu'ti nit ki lu mu amut munu koo joxe xeet wu njëkk wax kat biñ fiy jóge dañ fee bàyyi woon koom-koom seeni njaboot jariñoo ko ñu bàyyi fi yar ak njàng xam-xam ajiyaal yi muy génération yi ñëw ci seen gannaaw jariñoo ko xeet yu mujj yii nag bàyyi lun seen ak ndono yar waaye dañ leen a bàyyil am koom rek yam ca maanaam wayjur wu nekk na muy def ci àddinaam mooy nu mu fexee ba bàyyil njabootam am koom-koom waaye bàyyi leen ab yar yarab lislaam nga xam ne moo gën a nekk yittey salaf loolu amatut su ko defee fa lam yuwarris al awwal at tarbiyata lissaani ku njëkk ki bàyyilul yar ku mu jukki ñetteel bi mooy gis nañ ni yarkat dafa am solo trop ak jeexintal yu rëy rëy rëy rëy rëy lu muy def ci ki muy yar yarkat jeexintal bu rëy rëy rëy la daan def ci kanamu ki muy yar bal loolu dana nekk sabab nit ki ki mu dëgg doomam mel ni moom moom la ko daan yëkkati jox ko ni ko dafa ko yaral léegi nag ay jàngalekat ñoo bari waaye ay yarkat bariwul bal sax nag ci biir yarkat yi ñi ci amakus néew dana waroon a jàng yar ba xam luy yar waaye xam diine maanaam xam lislaam mën a jaamu yàlla rek yam ca taxul nit ki mën a yar waaye yar dafa am aw yoon woo xam nit ki te lay jaaree ba yar am fu muy tàmbalee am lu muy jéeg am loo xam ni xaw naa aay tuuti sax waaye da koy bàyyi mu jàll yooyu yëpp yarkat bi su ko xamut du yare loolu nag mbokk yi niñ ko gisee ñu gis ni bokk na ci yëpp yooye mooy lu bare bare bari ci nit ñi tey ay jàmbaar lañ ñi ngi jéem a yar waaye seen problème mooy dañoo dépassé fan waroon a tàmbalee loolu moo ko doon joxe ci misaal yafalut màgget mbaa suuxat mat wala ëkk ñaar yooyu benn du sotti mbaa jubbanti garab gu xës ba dëgër ba nuppi garab gi nga xam dañ koy jëmbat mu tàmbalee jeeb bi nga gis ni daa dëng nga daal di koy sampal ab bant mu jubbanti ko ca saasa bu nekkee ca tooy tooy ba ca ndawe ga foofu la gën a yombee waaye boo bàyyee ba garab gi dëgër ba toll ni poto bi nga bëgg koo jubbanti jàpp naan yow mi koy jubbanti yaay far damm yow màggat gu dem ba kumur mboolem luy joxe vitamine ci yaram ci àddina bi soo ko dajaloon di ko yafal da ngay yàq sa énergie rek waaye kooku du ma sa am doole waaye du ma sa yaflu du ma sa suur garab goo xam ne gor nañ ko ba mu desut ëkk nga xam ne ëkk googu moom xarate rek togg ci taal nga dal di koy samp yow di ko roote gis nga boo ko roote da ngay roote ba ndoxum àddina bi jeex waaye du jeeb bi loolu mooy tey am na ay jàmbaar yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ci yàlla waaye ñoom dañoo yëg ni dem nañ ba sonn te gisuñu benn résultat wala résultat bi bariwul par rapport ak coono bi ñuy daj li ko waral mooy dañoo dépassé étape boo xam ne dañ ko waroon a bàyyi xel yii daal mbokk yi suñ ko jëlee dama koy doyloo man ci ñu xam ni yëf yëfaan yi sabab la ci yar jafe jamono ji ñu tool ginnaaw bu ñu gisee ni ñu bare bare bare ñu ngi jàmbat lii te néew na tey ci muhaadaraat yi wala duruus yi loo xam ne dañuy toog di waxtaanee fànn gu mel nii waxuma amul waaye bariwul te jàpp na ne masala mu amee solo nii waroon nañ koy baril bi ci wax su ko defee jigéen ñi xam beneen tomb bi ci laytaay bi mooy ñu xam ni yar dafa am ñaari déggin yoo xam ni benn bu ci nekk xoofi la dafa am koo xam ni buñ nee yar moom jàpp na ni moom yëkkati bi yar di dóor la wala di digale ay digle ak di tere ay tere moom jàpp na ne loolu mooy yar déedéet fekk kooku dafa juum am na koo xam ne bu nee yar moom dafa jàpp ni mooy xale bi nga di ko jubbanti lu mu wax ni defal mu def lu mu wax ni bàyyi mu bàyyi ca yar fekk kooku tamit dafa juum waaye ka digg doomu ko mooy ki nga xam ne dafa yëg ni yar dafa yittewoo gone gi ci boppam lépp gone gi ca tàmbaleem ba fa muy mënalee boppam ak lekkam ak naanam ak jëflanteem li muy foye fan la koy foye ak lu muy foye yooyu yëpp dafa dugg ci buntu yar xataa xale bi jox ko wàllu lekkam ak naanam ci yar la te loolu ñu bare bare bare tey xamuñu ko moo tax may wax ne ñii jéem a yar sax après dañuy échec parce que dañoo am yu ñu fàtte am yoo xam ne tàmbalee wuñ ko ca bopp ba yooyu ne bi ñu ko xoolee ba ca biir ci leen gisoon tombab waxtaan wu mel nii woo xam ne insha allah ci li ma gën a yaakaar dina mat lu ëpp juróomi dars bu soobee yàlla dinañ ci def lu ëpp juróomi dars ndax dees na ci wane ak lépp ci fan la yar di tàmbalee ak yittewoo goo xam ne xale bi dañ ko war a yittewoo lekkam ak naanam ak di ko toppatoo physiquement ci wàllu yaramam dina ci laal tamit yarkat bu yarkat dëgg dëgg dëgg nan lay mel dina ko laal xale bi nan ngay dimbandikoo sa borom jëkk doog a tàmbali yow def say pexe bopp pour yar ko yan mooy fawukaay yi nga xam nga ko bàyyi mu di ko fooyee ak yoo koy tere am na mbir yoo xam ne yu garaaw waaye da ngay bàyyi mu jàll ndax âge bi mu toll waaye am na fu muy toll da nga koy jubbanti am na fu xale yi toll duñ yëkkati yar dóor ko am na fu muy toll kenn ko gën kenn du faafale te bu dóor jotoon nit ki wër ko dóor xale ba noppi te waxu ko lu tax mu dóor ko xale dafa war a boo ko dóoree képp bu dee daa def lu dul noonu boo ko dóoree am na àqu bi nga leeral ko li tax nga dóor ko ndax loolu day def jeexintal ci yaram ak ak ak mbir yu bari yoo xam ni defe naa dina feeñ insha allah ci parce que yële di ñëw su ma bëggoon a tàmbali damay wax ni tàmbalikaay mën naa nekk ci ay buntu yu bari donte am na ci yoo xam dama koy jéeg ngir sakkanal waxtu ki nga xam ne bëgg a yar bu dee góor la jàpp naa ne moom ci dimmi boppam moom faaw mu yar ba noppi bu dee jigéen la faaw mu yar ba noppi doom bi nit ki amagut ginnaaw bu mu jaaree ci marxala boobu dafa war a ci tàmbali yar doomam dafay wut bàyyi doom ba noppi kan moo nar a nekk sa bàyyi doom gis nga nit ki loo bëggul sa doom mel ni rek bul am borom kër bu mel noonu ndax al arq dassaas ci nit day ragalaat góor gi doomum kum doomum bu jigéen mu bëggul mu mel ni bu mu takk soxna su mel noonu ndax al arq dassaas kon bokk na ci yar faaw nga tànn sa bàyyi doom bu dee jigéen nga faaw nga tànn sa yaayi doom bu dee góor nga boobu marxala marxala bu yaatu la ak nuñ koy tànnee taxumaay jóg ndax léeg-léeg dinañ faral di waxtaan ci tomb yooyu ci sëy yeeg munaasabaat yu ni mel am na xutwatu thaniya mooy nit ki ci boppam bu ko yàlla subhana taala wërsëgalee mu am borom kër di séentu doom na yëg ni hidaaya ci boppam tegewut ci loxoom mooy xale bi yaru wala mu baax du yaa ko yore nag waaye nag am nga ci wàll la koy firndeel bokk na ci mooy sunu borom day wax ni yonente bi ni ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha yow yonent bi du yaay gindi ku la soob waaye yàlla mooy gindi ku ko soob ndax yonent bi su doon mooy gindi ku ko soob defe naa bàyyam Abu Talib dana gindee loolu ndax day tax nit ki yaakaaral ni ah comme yàlla mooy gindi kon man jarul may def benn effort déedéet suñu borom ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow kat da ngay gindee di jëme ci yoon wu jub nekk foofu dafa am ñaari hidaaya benn bi mooy hidaayatu tawfiq beneen bi mooy hidaayatu irshad wal bayan hidaayatu tawfiq mooy gindi goo xam ni yàlla addina bi kenn mënu ko nga xam ne yàlla rek yuwaffiqu abdahu fa yahdi mu gindi ko loolu nag yàlla dong moo koy def kooku moom lu yarkat bi ri jàmbaare jàmbaare mënta def xale bi gindeeku kooku gindeeku kooku moom yàlla rek nga koy ñaan ñaareelu gindeeku bi mooy hidayatul irshadi wal bayaan mooy hidaaya boo xam da ngay jubbanti xale bi ak di ko leeralal ak di ko fàttali ak di ko orienté utal ko pour bu baax ngénte ko yaay ju baax mu di ko nampal na l'islam bëgg ila axiri effort yi ngay def yooyu mooy tax nit ki kat mu jubbanti ko waaye laa mu demoon ba tànku nga ñëw di def ay effort boole ko di ñaan yàlla ba xale bi indee kon yooyu benn bu ci nekk rek jàppoon naa ni matoon na dars yii ma wax nii ne benn bu ci nekk borom xam-xam yi wax nañ ci loo xam ni expérience tamit wane ci loo xam ni mat na dars waaye fi may tàmbalee moo gën a xóot ñëw rek tey ni leen xale bi di leen ko yaree duñ ko yaree nii déedéet damay tàmbalee ci ki yàlla wërsëgal doom muy bébé ndax defe naa foofu la xale bi njëkk a feeñee ki ñuy yar foofu la feeñee même jigéen ji nga xam ne mi ngi toll diggante sax fi mu tàmbalee yëg ni fa la toll diggante ba keroog bis bi muy am doom am na njàngale mu farot yoo xam ne mu rabbuun yi dañ koy wax ni ki bëgg doomam mel nangam ginnaaw bu tànnee borom kër wala mu tànn soxna ba noppi bu dee jigéen la diir bi bi soxna si nekk ci nangam diir boobu war na ci def nangam ak nangam war nay mooy tëdd ko nangam ak nangam loolu bul yaakaar ni xale bi ñëwagut moo tax jërul ma koy def waaye dafay am jeexintal ci gone gi dafay am jeexintal ci gone gi loolu moom borom xam-xam yi bind nañ ci lu yaatu waaye nag léegi comme ki ñu yar léegi ñëw na nee na put xale bi ba lu ñuy yittewoo dëgg dëgg dëgg ak yaram ci jamono jooju ndax xam nga fi mu nekkee liir xam nga foofu dooni ko defal dooni ko bàyyil doo def comme ni jigéen ñi wax kii ni mu dëgëree bopp yow kii lan la xam lan la xam bay dëgër bopp moom daa jëndoogu daa demagut fenn bay dëgër bopp ah wala xale bi di weñaaru di jooy ñu ne kii ni mu reewee kooku mënul réew loolu loolu wax la yoo wax li wolof yi naan waxi naxasa kan nag maanaam jigéen joo dégg muy wax loolu xamal li muy wax waxi naxasa kan kii tollagul fu muy yaroo mbaa fu muy réewee ah léeg-léeg muy wañaaru di jooy te fekk jooy yi ñaari yëpp mën na koo waral kéemtaan gi gën a rëy mooy kuy méttitlu te mënta wax li koy méttitlu parce que bu ngeen fàttali ko waxoon naa leen ci way jur ak doom ma ne way jur ci boppam li tax mënoo koo fay mooy ki ngay wax dafa naqari deret moom mën na laa wax li ko naqari yow yaa ko gënoon a naqari deret fuuf te mënoo wax la naqari xam nga way jur su amee lu ko naqari boo ne daa naqari deret boo nekk la naqari mu wax la waaye xale bi moom dafa naqari deret di jooy lu loolu la ñu wax waaye boo ko laajee loolu loolu la naqari bu ko wax ko gën a compliqué te way jur doon na la ko muñee kon benn boobu mooy benn bi ñaareel mooy gis nga albuka dafa bokk ci li baax ci xale te jigéen ñi borom xam-xam yi yar dañuy wax ni xale dina toll boo xam ne léeg-léeg muy jooy sax dañ koy bàyyi mu jooy gis nga xale bi yuuxu yi muy yuuxu léeg-léeg waxuma da nga bàyyi xale muy jooy noonu rek waxuma loolu comme ni jigéen ñu tayal ñiy def waaye gis nga xale su fekkee yaa ngi koy yar te doo bëgg mu jooy benn yoon benn yoon saa bu ne xeere nga yëkkati déedéet yaa ngi koy lor te yëngu gis nga yuuxu bi muy yuuxu dafay travailler fii buli bi yuuxu yi muy yuuxu dafay ubbi dënn bi te dafa xatoon te dafa war a ubbeeku yuuxu yi muy yuuxu dafay tawi biir bi ak sidit yi yuuxu yi muy yuuxu dafay tàllal cër yi loolu borom xam-xam wax nañ ci lu bari loo xam ni fi ngay xam ni gis nga suñu borom xakimun alim lu mu def rek xam lu ko waral xale xam nga ni ay jooy la gën a bari ci reetaan parce que xale su amul ree ree amul ko benn rendement ree moom bu ko xale defee rek xamal yaa ko reetaan loo te loolu lu kéemtaan la ci liir ree bu ko defee rek yaa ñëw di ko ree parce que yaa ci am aajo moo tax mu fekk si la ci aajo bi waaye bu dee jooy moom foo ko fekk rek da ngay gis muy jooy jooy yu bari lu ko waral parce que am nay jeexintal yoo xam ne daf koy def ci yaram bi kon maa ngi tàmbalee ci jigéen ji bu amee doom sonn bi mu war a sonn ci yar ko ci nàmpal ndax nàmpal ci boppam dafa bokk ci àqu gone gi te xale bi bala nga koy laaj ay àq am na war a defal ba pare kon tomb bi jàpp naa ne tomb la boo xam ne suñ ko waxee dana jaaxal ñu bay jàpp lu ko yóbbu ci yar fekk ahan kay ki ñuy yar dafa am loo xam ne soo ko ko joxul soo ko bëggee yar du yaru borom xam-xam yi dañuy wax ni jigéen bu ko yàlla wërsëgalee doom war naa góorgóorlu sonn lu mu man ci nàmpal waaye bu koy nàmpal mu nàmpalee ko li yàlla jëmbat ci jigéen muy weenu boppam ndax borom bi dafa jox jigéen jumtukaayu ween boo xam ne ñi ngi commencé di travail ci jamonoy ëmb ndax xam ngeen ne jigéen bu tollagul ci ëmb gis ngeen ween ni muy mel ak bu demee ba ëmb ween li muy liggéey fekk suñu borom mi ngi préparé liir bi la mu war a dundee ndax loolu day jeexintal ci ab yaram ab yaram ak yaramam waaye ak xelam tamit su ko defee kon loolu sabab la ci ñaari ween yi benn bu ci nekk jigéen ji war na koo fonk te lépp loo xamante ni da koy yàq wala muy yàq soow mi ci nekk borom xam-xam yi ñu ne nit ki war na caa war na koo moytu nit su ko defee boo seetloo ween bu doog a tàmbalee génne meew li muy génne liquide la bu xaw a genre liquide boobu noonu mu mel mooy li gën a baax ci liir buy doog a judd moo tax gis nga liir bu ko ñàkkee bu ko ñàkkee bu màggee da ngay sentir dafa feeñ ci moom loolu liir bu ko ñàkkee bu màggee da ngay sax day feeñ ci moom moo xam ci wér gi yaramam lay feeñ moo xam day feeñ cim xelam mën nga koy yar sax fekk yar bi am na lu dese dugg fekk dafa am àq boo ko xañ ci wàllu nàmp loolu moo tax nag borom xam-xam yi di wax ni ci wàllu toppatoo jigéen ji toppatoo ay weenam ci fexe ba ñu bañ a nekk loo xamante ni dafay am ay microbe wala mu nekk loo xam dafay tilim ndax loola tamit ay jeexintal la yoo xam dafay def ci liir bi parce que xale bi lu tuuti lu lu tuut tuut tuut lu dugg ci yaramam ci ay microbe rek loola mën na ko lor ci wàllu wér gi yaram te jàpp naa ne ku wérut moom kooku xam ngeen ni kenn du ko jéem a fexe di yar waaye leneen la ñuy jéem a toppatoo kon borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ni wal walidaatu yurdaana awlaadahunna xawlayni kaamilayn liman araada an yutimma radaa yaay yi bu ñuy nàmpal seeni doom nañu nàmpal ñaari at yu mat ci ki namma matal ak nàmpal kooku mooy rôle wayjur wu jigéen bi amma wayjur wu góor suñu borom mu ni wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf baay ji na dimbale yaay ji ci nàmpal gi ka lekk yaay ji di lekk parce que lekk bi nit kii lekk dafay def jeexintal ci gone gi moo tax doo dem hôpital mukk ñu lay bindal ay comprimé naa la boo demee liir bi dafa am parce que toogagul fu muy naanee kon li yaay jiy lekk ci lu bon dafay jeexintal ci gone gi waaye li muy lekk ci lu baax day jeexintal ci gone gi te loolu nag way jur waa ko ci mën a dimbali foofu nag boo seetloo alquran faram-fàcce na ko ci yeneen i aaya comme lu mel ni wa hamluhu wa fi wa fisaaluhu salaatuuna shahra ëmb gi ak nàmpal gi sunu borom mu ni fanweeri weer lay doon fanweeri weer boo ko génnee ci ñaari at ñaataay def salaamaaleykum fexeel sa mbokk mu ne toog fanweeri weer boo ko génnee ci ñaari at six mois moo ciy des ci loolu la lenn ci borom xam-xam yi sukkandiku ne kon jigéen war naa mën a ëmb juróom-benni weer ndax bu fekkee ñaari at la war a nàmpal suñu borom mu ne nàmpal geeg ëmb gi fanweeri weer la fanweer boo ko génnee ci ñaari at yi muy ñaar fukk ak ñaar dafay des juróom-benn kon loolu bi jigéen ëmboon tey juróom-benn weer am doom kenn du ko wax da ngaa njaal wala da ngaa nangam déedéet loolu lu mat a teey la ñaari at yi mi ngi nekk ñaar fukki weer ak ñeent naam. kon xam-xam saxal na ni namp yi nga xamante ni liir da koy teel a namp di ko génne ci weenu yaayam loola dafay def ay jeexintal yu rëy rëy rëy ci aw ci yaramam waaye tamit ci ab yaram ci bu fekkee dañ koo bëgg a yàpp borom xam-xam dañuy wax ni liir noonu mu dikkee yaramam amul ay jumtukaay yoo xamante ni moom moo koy fegal ay musiba ay lor xam ngeen mag dafa am lu ñu tudd al jihaadu man naa mooy ay jumtukaay yoo xam ne tey bu microbe ñëwoon ci sa yaram jumtukaay yooyu mooy xeex ak moom ba microbe bi dee te doo jëlee ko benn garab su jumtukaay yooyu tëngee nag moo tax affaire bi attaqué la nga feebar loolu nag xale amu ko borom xam-xam yi dañuy wax ni ci weenu yaay ci la yàlla def jumtukaay yooyu nga xamante ni mooy sabab ba xale bi yenn feebar yi du ko mën a gaar rawatina nag meew mi nga xam ne mooy njëkk a génn borom xam-xam yi dañuy wax ni meew moomu jigéen ji bëgg a yar doomam faw mu tàmbali ci yaram ci sàmm jigéen ji doom ji muy nàmp muy benn nay nàmp lu doy muy ñaar ak nan koy nàmpalee tamit muy ñett yooyu yëpp ay yëpp la yoo xam benn bu ci nekk ku ko toppoon mën naa jël aw waxtu waaye loolu dafay def jeexintal ci bina muy jëmm ji ni mu war a formé woo dafay def jeexintal ci jismam muy jëmmam li fari ci biti waaye dafa dafay jeexintal ci aqliyan ci wàllu xelam maanaam xelam ak nangoom ak bañam dafay feeñ ci loolu moo tax boo seetloo jigéen ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ñuy faral di nangoo nampal seeni doom ci seeni weeni bopp borom xam-xam dañuy wax ni boo seetloo gone yooyu ñooy ëpp ak yeewute ci wàllu yar boo doon yar wala ngay jàngale gone yi nga xam dañoo nampee meew ba regg ñooy gën a yeewu gone goo xam ne dafa nampee leneen lu dul meewam yaayam bal médecine dem na ba saxal ni te loolu dëppoo nañ ci psychologue yi tey ci addina bi moo xam mu'mini yi moo kaafiri yi yéefar ak jullit yi ci yem pourcentage bi faatu par at ci ay gone ci ay tout tànk maanaam li nga xam ne gis nañ ni dañuy nàmp ci weenu yaay ba rek moo gën a tuut li nga xamante ni ñoom dañuy moo xam seen yaay moo mooy faatu moo xam seen yaay daa nekk ab intellectuel nga xamante ni du nàmpal wala comme ni ngeen ko xamee ci jamono yooyu su dajee dañu wax ni maanaam liy faatu ci ñi nga xam ne nàmp ñu seen weenu yaay dañu gis ni moo ëpp ñeenti yoon liy faatu ci ñi nga xamante ni ñoom dañoo nàmp ci seen weenu yaay biñ defee gëstu ñu gis ni parce que bii moo gën a baax ci wér gu yaram ci gone bi gone gi ndax borom bi subhanahu wa ta'ala lépp lu lu nit di soxla xam nga tey nit ki day soxla calcium soxla sodium soxla potassium soxla fer soxla ila axiri yooyu nga xam ne yaram da koy soxla yooyu yëpp borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni mi ngi ci meew waaye bu ma nee meew nag maa ngi ci na mu meewu yaay maanaam mi ngi ci meewu yaay nga xamante ni mooy ween weenu boppam kon su ko defee loolu borom xam-xam yi ñu ni boo seetloo olamaw tarbiya ñi gën yëngu ci wàllu yar dañu gis ni xale yi gën a neex a yar boo leen comparé ak ñi nga xam ni xëy na xañ nañ leen weenu yaay boo seetloo ñii ñooy gën a neex a yar parce que loolu suñu borom moo ñaalee maanaam doomu aadama bala sax nag jigéen ji nàmpal ay jeexintal day këppuwaat ci kawam cancer de sein li ëpp ci jigéen ñi koy am boo seetloo jigéen ñi nàmpalul lay door moo xam dañoo nangu la nàmpal moo xam dañoo bëggu la nàmpal moo xam dañoo weesu fu ñuy war a nàmpalee loolu seetlu luñ ko cancer yi am ci ween pourcentage bi am doo fekk mu baree ci jigéen ñi am doom di nàmpal déedéet lu ko waral parce que lii waral cancer bi am ci ween namp da koy dindi subhanallah maanaam da ngay màggat mu dem ba magal nàmpalatut waaw xanaa mën koo dal wa illa jigéen ji xëy na amul borom kër wala mu yeex a am borom kër wala yu demee noonu wa illa am na doom waaye nanguwul a nàmpal wa illa am na doom waaye ñoxor njaay mu feral gis nga yooyu ñooñu la cancer de sein di ëpp lu muy dal que ñi nga xamante ni ñoom dëgg la mën naa dal nag kuy nàmpal waaye bariwut lu muy faral di am su ko defee kon jigéen ji lu muy gën di nàmpal loola dafay def ay jeexintal ci moom borom bi subhanahu wa taala nag wax ji mu wax wal waalidaat yurdi'na awlada xawla kaay bi dafa mel ni amru la digle la yaay yi nañ nàmpal seen doom yi te usul yooyu borom xam-xam usul yi dañuy wax ne saa bu sariya ne def leen nangam dañuy jàpp ne nangam jooju lu war la ba keroog ñuy gis lu koy génne ci war bal nag yonent bi ñëw gën koo firndeel ndax yonent bi dañu woon yaayu Abdullah ibn Zubayr nampalal sa doom ji même bu dee sa ndoxu bët bi nga koy nampalee xam nga loolu moom waxin la même booy jël sa ndoxu bët yi di ko nampalee nampal moo lay wax ni kon nampal gi àq la ci gone gi bala ñu koy jublu naan dañ koy yar nan fexe moom na namp ba doyal la nga xamante ni moom mooy meew bu ñu comparé nag xale bi ci wàllu jëmmam comparaison bi am ci diggante gone yi nga xam ni wala gone gi nga xam ni dafa nàmp ci weenu yaayam ak gone gi nga xam ne dañ koo nàmpalee ñoom bi bu roog ñoomin seen yooyu nga xam ne maanaam nit ki dafa waroon a dem ba amut pexe doo ko jël lool borom xam-xam dañuy wax ni borom bi ni mu composé meew pour xale bi ñu war a yar wala xale bi judd maanaam bokk na ci li différence bi ngay njëkk a seetlu ni moom la wuuteeg meew yi ci des mooy meew yaay dafay changé gis nga jigéen ji bu amee doom jour bu njëkk bi meew bi du bokk ak jouru ñaareel bi deuxième jour bi meew bi du bokk ak troisième jour bi quatre jours yu njëkk yi du bokk ak après quatre jours yi une semaine après bi nga amee doom meew mi du bokk ak après une semaine quatre semaines nag quatre semaines muy vingt et quelques jours nag su ko see jàll nag ci la meew mi doo ko commencé di wàcc di naturel nga xamante mooy meew mi ngeen xam waaye fii ak àggut foofu meew mi day changé parce que bis bu ne am na lu sa xale bi soxla lu war a dem ci yaram yi loolu suñu borom da koy def ci meew mi xam ngeen loolu moom loolu moom xarala xara yu bee ci àggagut ci di ko def ci meew yi ñuy naan moo tax kon foofu rek fa la jël bu njëkk bi di njëkk am ci ki nga xamante ni nàmp na weenu yaay ak ki nga xamante ni nàmp ko ndax borom xam-xam dañuy wax ni li yaram bi di soxla moom gone gi dafay am ci bis bu njëkk bi di sab ñaareel bi moo tax boo seetloo bu ween wi nee pacc génn meew bii génn boo ko xoolee nga teg ko boo demee ba am vingt et quelques jours wala mu jege ko boo comparé meew yi du ñu nuroo li ko waral parce que bii dafay xaw a jege jaune bee dafay weex clair tuuti bii liñ ci def dafa bari ci ay jumtukaay yoo xam dafay raxas biiru xale bi te it bu yegsee ci biir bi lii waral nit di ay micro ak microbe ba biiram di daw wala moom ay microbe ba ila axiri genre yooyu loolu meew yaay da koy raxas ci li nga xamante ni moom mooy xale bi muy meew moomu njëkk a génn moo tax foofu borom xam-xam dañuy wax li gën a dangereux mooy jigéen sàggane meew moom bañ koo jox ki nga xamante ni moom mooy doomam ñaareel bi ci comparaison bi mooy ci wàllu seeyal ko ci yaram bi jigéen jiy nàmpal na yëg ni liir bi mu téye di ko nàmpal su fekkee da koo jox meneen meew mu dul meewam boppam mën na def ay quelques heures wala ay minutes boobu yu xaw a bari ngir transformé wu pour mën a dem ci yaram wi te meewum yaay bu duggee automatiquement rek dafay transformé wu dem loolu man misaal bi ma ko mën a joxe bu gaaw la dama koy joxe toujours ci yenn sasalam digle gi mu digle ci woor ba ngoon ba dogee tàndarma yenn sasalam dañu commencé ba dogee tàndarma borom xam-xam dañuy wax nit bu wooree ba ngoon dafay xiif dafay loox dafay manqué suukar dafay manqué ndox ila axirihi léegi yaram wi dafay ñukki ci biiram yu mu réservé woon moo tax gis nga bu ñukkee di ñukki di ñukki di ñukki ba li mu réservé woon jeex waa ji day jékki-jékki rek ni këndam xëm xam nga lu tax mu xam mooy yaram mënatu la dem am na koo xam ne dëgër na balaa muy xam fekk dog jot na léegi nit ki bu jëndee ay lekkam fii teg fii teg fee comme ni sisi sisi sise yi def bu doon jotee gis nga boo lekkee da ngay toog ay quelques minutes yu bari sax lu ma trente wala nangam affaire bi doog a transformé wu pour mën a dem ci deret bi dem ci suukar si dem ci nangam suukar bi nekk ci tàndarma moo gën a gaaw gis nga bu ko nekk lekkee même pas quinze dix minutes rek affaire bi transformé wu dem moo tax su ko defee loot gi nga amoon maanaam li yent bi digle salaa salaam soo ko defee day gaaw a def loolu moom laa mën a joxe message ci meewu yaay ci gone ndax heure yi nga xamante ni yeneen meew yi daf koy def maanaam moom genn wàllaatu genn wàllaat ba su ko defee rek day daal di commencé njariñ xale bi ci xaat ci saasa beneen bi ci des mooy moo gën a laab la chaque année moo gën a laab ndax meneen meew mu mën a doon xëy na peut-être que meew yi nga xam ne dañ koy jaarale ci ay laboratoire dugal fee dugal fee mën naa tane tane rek laay wax waaye wóor moom dëgg dëgg meew mi génnee ci ween la parce que bu benn microbe bu ci nekk loolu borom xam-xam yi dëppoo nañ ci beneen bi ci des mooy daraja xaraare bi ci am mooy tàngoor bi meewum yaay boo ko seetloo en général day tàng nit ñi nag bu ñuy faral di naan lu seet lu sedd la ñuy gën a bëgg waaye meewam day tàng lu lu ko waral mooy gis nga borom xam-xam yi gëstu nañ ba gis ni tàngoor dëgër tàngoor bi meew mi yore mooy tolloog dëgër tàngoor bi ne ci gone gi te loolu boo jëloon beneen meew du ko mën a am bal bal sax ci wàllu xel sax am ngeen ne amul benn kutewu la dara meew mi jigéen jéeg moom fayoo ci dara pour am ko te bee faaw nga dem pharmacie naa nga dem feneen daal di koy jëndi microbe yi nga xamante ni da koy kii dindi ci doomu aadama ak ni mu koy dimbalee loolu amul ci yeneen meew yi bal sax nag psychologue yi dem nañ ba gis ni moo xam meewu nag la moo xam yenn xeeti meew yi loolu mën naa tax sax xale bi du am du yeewu du am intelligence benn bis damaa toog di def gëstu ci bunt bi ba xool ba mu yàgg ma ne waaw moo kon li tax nit ñi léegi sawaay ñu jànnaxe koo ci gis sawaay mi ngi mel ni mërëm làmb mu dox ndax li ñuy nàmpalee suñu doom yi ay biberon yi meew nag kese bàyyi xaw ma loolu la de waaye sama xel man loolu la jox ndax boo seetloo léegi jigéen ñi ñii dañuy jàng ñii dañuy liggéey ñee ñoom nee nañ bëgguñu seeni ween wàcc bëgguñu seeni ween wàcc moo tax duñu nàmpal ñii nee nañ bëggunoo gaaw a màgget foofu gis nga jigéen ñi ma wax leen secret boo xam ni gis nga ñàkk a nàmpal danger bi ci nekk waxuma la xadiis yi di ñëw ay tëkkoog ñoom seen waaye ci wàllu santé rek borom xam-xam yi dañuy wax ni aspiré bi xale bi di aspiré meew bi aspiré boobu mooy fattaat butitu jurukaay yi gis nga jigéen bu juree ba noppi ay ay butitam day ubbeeku yaramam yu bare bare day ubbeeku gis nga xale bi suñ muucu di xëcc di aspiré loolu dafay delloowaat day tancaat maanaam dafa mel ni xale bi day aspiré mu jëm ci moom aspiré bi di gën a sewalaat di tancalaat sidit yi nga xam dafa ubbeeku woon ci yaram bi benn ngoo te gis nga loolu am na leen yenn xe xeet appareil yu xew yoo xam ne jigéen ñi dañ koy def seen kii di ko aspiré la dangay jigéen ñi ñi subhanallah yàlla moo kéemaane gis nga am na jigéen ñoo xam bi ñu déggee loolu ñoom dañ ne kon duñ nangoo nàmpal seen doom ci meew mu dul seen meew léegi dañuy xëy am na benn appareil boo xam da nga koy jël samp ko ci catu ween bi appareil boobu mooy aspiré ween bi dem nañ ba gëstu ni aspiré boobu mu koy aspiré mënta delloowaat cër yi donte day aspiré comme parce que li tax mu mën a dellu yàlla mi ngi ko def ci gémmiñu liir bi kooku benn la beneen bi ci des mooy maanaam xale bi xëcc gi mu koy xëcc borom bi daf koy def automatique boo xam ni génn gi soow mi di génn sabab lay doon ci am na tur yu nekk ci ween yoo xam ne du fat boo seetloo jigéen bu bu doomam faatoo wala doom ji juddu andiwul bakkan wala genre yooyu dañuy gis ween yu commencé di jonki lu tax loolu parce que même mu war a génn génn gis nga loolu bu yàggee dafay lor jigéen bi lu tax mu koy lor mooy tur yi amoon ci ween bi la meew bi commencé di fat te loolu baaxul ci wér gi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni maanaam xam-xam dem na ba gëstu ko su ko defee kon yooyu ay sabab la yu war a tax jigéen ji góorgóorlu sonn ci nampal li nga xamante ni moom mooy doomam borom xam-xam dañuy wax ni xale bi nga xam ni yaay ji mi ngi koy nampal ci weenam na yëg ni mbooleem lu nit di soxla tey nit ki gis ngeen li ñuy lekk da ngay lekk pomme lekk banaan lekk orange lekk gerte lekk dugub lekk mboq yooyu yooyu pour pour lan parce que lu nekk rek dafa am lu yaram yu soxla ah mooy yi ma tudd sànq day soxla fer mooy waral léeg-léeg nga gis jigéen bi bu ko soxlaa ñu jox ko seen doom yu xonq yooyu day soxla phosphore day soxla calcium calcium bi mooy tax yaram wi di dëgër ah nga xam ne suñu borom da koy def ci meew mi nga xam ne xale bi muy nàmp yax yi dafay dëgër ah léeg-léeg nga gis ki ko ñàkk ki ñàkk am calcium boobu da ngay gis ni loolu dafay sabab yaram wi ne lappax nga xam ne daanaka moom kooku moom wér gu yaram ngay tal waaye doo tal ab yaram bu ko defee léeg-léeg nga gis sax meew yi ñuy defar da nga gis dañ ciy def ay jumtukaay yoo xam ne day tax mu am calcium parce que yaram daf koy soxla su ko defee meew yi nga xam dañuy jëfandikoo bokk na ci leen meewum yaay ji gënee mooy li nga xam ne dafay méngoog ndox borom xam-xam dañuy wax ni am na ci meew mi lu tolloog quatre-vingt-huit pour cent li nga xam ne day tolloog protéine mooy tax yaram bi di xaw a nii nay bañ a tappaal loolu. un virgule cinq pour cent am na ci ci weenu yaay ci loo xamante ni maanaam buñ ko bëggoon a def ci meneen meew fekkam dana ci am mën nga caa sonn lool almaadin yi nga xamante ni mooy waral yaram wi dëgër wala mu am feer wala yu demee noonu moom it am na ci maanaam daal ci li ma bëgg a wax mooy loolu ma doon junj sànq yépp benn bu ci nekk am na ci xeeti vitamines yi nga xamante ni nit ki da koy soxla maanaam am na ci li nga xamante ni moom mooy weer junj naa sànq benn mbir mu am solo mooy xale bi li ko tàmbalee ci bis bi mu juddoo ba bis bi muy am vingt un jours jigéen ji daa war a sonn bu baax muy nàmp weenam léeg-léeg nga dégg sax ñuy wax naan xale bu juddoo ba keroog mu yegg six mois la ca baax ci song dëgg la dañ koy waxee noonu rek waaye la tax ñuy wax dëgg dëgg dëgg six mois agul six mois maanaam baax yii ñuy wax day dem ba àgg six mois déedéet maanaam li ko tàmbalee fi xale bi juddoo rek ba keroog muy am vingt et un jours foofu moom am na ci yëf yoo xamante ni moom bu rëccee xale bi rek moo tax beneen affaire amaat na mooy léeg-léeg nga gis ku am doom doom ji am problème ñu dugal ko crèche defe naa gis ngeen loolu léegi bu ñu ko dugalee crèche dëgg la ñoom dinañ ko jox ay jumtukaay lu mu lekkee waaye foofu ma ngay ñàkk li yaay gis moo tax lu mel noonu foofu sabab lay doon ci nit ki ñàkk dëgg la nag mën naa am lu ko remplacer waaye nag bu ko remplacer du mel ni moom nag boo amee ñetti semaine nag muy vingt et un jours nag léegi yëf yi daal di tàmbalee soppeekuwaat léegi loolu dama ko doon junj lu tax ma doon ko junj mooy dama gis ni soxna yi ñu bare bare bare dañuy sàggan ci wàllu nàmpal dañu sàggan ci nàmpal lool ba jéggi dayoo sax te it nàmpal jigéen ji bu téye doom di ko nàmpal nii gis nga léeg-léeg boo ko tëralee comme ni jigéen ñiy def tëral ko mu jaaxaan ba ni basax loolu baaxul ci buy aspiré meew mi fi mu war a jaar dëgg dëgg dëgg du fa jaar borom xam-xam yi dañuy wax ni li féetee bopp jëm kaw dafa war a téen ba sëpp li féetee biir jëm suuf kooku benn la beneen bi ci des mooy gone li muy soxlawoo ci weenu yaayam dafa bari ba maanaam comme ñenn ñi niñ koy faral di dee na ne xëy dem liggéey mbaa nga xëy dem ca marché ba mbaa nga xëy dem ca na rootukaay ba yendu faa yendoo yendoo yendu ba ngoon ñëw ni ko faccax ween wi pour ba du mu nàmpandoo li muy nàmpandoo lépp laaj den gaa yi woor si di si yi woor di ko jéem nga xam ne dañuy woor ba ngoon li nga perte ci bëccëg bi yëpp nga bëgg koo rattrapé ah sa waay jënd peole fii teg jënd saako yi teg jënd defar boisson defar nu si gën li nga xam ne lu am la naan dootu lu ñuy tooñaate yooyu boo ko defee après sa biir day metti boo paree wàccu rek ngay def loolu mënu nekk maanaam li nga perte lépp mënoo koo amand amatoon lool su ko defee loolu kon yaay ji bay na xiin wala aaxar dafa war a yëg i doom ji da ko war di nàmbal beneen bi ci topp mooy yaay ji tamit buy nàmpal doomam bokk na ci li gën a dangereux mooy jigéen di nàmpal guddi tëdd doom ji tëdd mu jox ko weer bi ba sax yandoor dina la loolu moom xaajut bay baax ci wér gi yaram xale bi mën naa nàmp ba nàmp lool wala ko nàmp ba soow mi day mujj di génnaat moom di jaar ci bakkanam di génn loolu mën naa paas sax gone ñu bari na da ngay koo xam dafa taayal a taayal a taayal ba bu xale bi ne ngeew ngeew rek mu daal di yëkkati jox ko ween wi rek mu daal di continuer di ay nelawam déedéet xale bi da ngay jug toog nàmpal da ngay jug toog bàyyi gone gi mu jël lam soxla nga doog a tëddaat moo tax gis nga boo gisee yu bare bare bare ci suñu gone yi ñu échec fekk na ndeysaan seen yaay même bu ñu bëggee baax sax tayal moo leen di jàpp tayal su ko defee loolu comme li ma wax sànq sabab am na njariñ yu muy jariñ ku jigéen ki mooy benn daf koy dimbali ci butit yi nga xam dafa tijjeekoon na gaaw a tëjuwaat beneen bi ci des mooy te defe naa waxoon naa ko ci benn xutba bu ñu ci defoon ci wàllu tahdiidu nasl wa tanziimu nasl organiser mbirum jur gis nga foo seetlu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nàmpal dëgg dëgg dëgg dëgg néew na lu ñuy def waxuma amul nag waaye bariwul lu muy am li ko waral mooy ni ëmb li teree baax di génn aspiré bi xale bi di aspiré meew mi noonu lay teree jigéen di jël ëmb donte nag léeg-léeg jigéen mën naa nàmpal ba noppi nag jël ëmb te su boobaa xëy na tahdiidu nas la mooy nangam laa bëgg a am ci doom du ma am nangam ci boo ko tëdd damaa bëgg organiser wu ndax nit ki sañ naa mu ni kat man maa bëgg ñaari at yu nekk na organisé wu loolu borom xam-xam ñu ne su fekkoon jigéen da koo def ci jum ñàkk bañ ñàkk taxut ragal taxut bañ a nàmpal taxut waaye organisé pour bëgg a defar ay doomam loolu kenn du ko tere. foofu nag waxoon naa ni mboolem jumtukaay yi nga xam ni jigéen ñaa ngi koy jëfandikoo pour bu mu ëmb ay musibay neen la mbokk yi. taxdiidu nasl ci xutba boobu ñu fi defoon waxoon naa leen pellel yeeg. injection yeeg yëpp amul ci benn lu dul def ci jigéen ji ay effets secondaires bokk na ci da nga gis jigéen ji mu daal di biir bi rëy lool te fekk bu defu dara bokk na ci réglam dafay deret bokk na ci da ngay gis léeg-léeg muy xëpp deret fekk dara dalu ko ak ak ak yeneen mbir yu bari yoo xamante ni feebari bopp feebari biir yi métti feebar tànk yi métti yépp loolu da koy waral foofu nag am na xeeti jumtukaay yu dagan yoo xam ne jigéen ji mën na koo jëfandikoo te du jël ëmb te yu dagan lay doon am na benn bis nag ma ciy wax ba yegg ci bunt bi benn mbokk bu ne ma loolu di ëpp na di wax ca kaw ndax boo koy faral di wax ak ni mu yombeeg ni mu amee efficacité mbaa ñi bëgg a caaxaan duñ ko jël dem def ko ma ne ko ah waa wax nga dëgg de waaw su ko defee kon foofu nag damay jëfandikoo nasiha mbokk mooma jigéen ji ko bëgg bu jokkoog ab borom xam-xam bu xam ca fànn yooya mën na koo wax ay jumtukaay ay naan am na xeeti naan yoo xam naan wuy dagan la dara néew ci du dagan naan la te jigéen ji bu seyoon ba nag mu naan mën naa ci am doom te loolu dagan naa naan loolu am na ci naan yi am na ci lekk yi loo xamante ni jigéen bu kii ba pare lekk ko ci saasa fa saasa mën naa bañ a jël ëmb te yu dagan a lekk lay doon ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay jumtukaay la xanaa defe naa su ma jëfandikoo nasiha bu mbokk ba ma jënd ko doon rek ci lay gënee kon loolu laa tënkoon mu nekkoon ab départ ngir nin war a sonnee ci xale parce que xale bi su fekkee joxoo ko li ñu ko war a jox ci nàmp dëgg dëgg dëgg jàpp naa ne kooku ak wér du ko am te ku amul wér moom di nga wax leneen lu dul naan dama koy jéem a yar am xel du ko am te xel ma bu melut na mu war a mel jàpp naa ne di nga am yenn yoo xam ne dul naa ko def léegi du ma ko defal lee tomb yi may tënkee mooy ñu xam ni mbokk yi ci wàllu yar lu danger jigéen da koy def ci jamonoy nàmpal foog ñu xale bu amagul dara fekk échec bu réy ngoo bokk na ci yooye am na jigéen yoo xam ne moom liir la yore liir bi moom xëy na xamagul dara waaye mi ngi tëdd nit ki mën naa génnee ci wara bi comme ça bébéyam la wa illaa biir néegam la nekk rek dutee ko ay yéréen sànni fële xale baa ngi xool aw yaramam doote mooy yaayam wala moom tarbiya dañuy tere loolu parce que dañuy wax ne xale bi amagul idraak amagul idraak mooy jàpp xam ni lii kat portable la portable kat moom woote lay jëriñ xoolal suñu doom yi xale yi nàmp sa fi ne koo ci jox portable mu teg ko fii xam nga lu ko waral mooy xale bi xamul luy portable xamul lu portable di jëriñ waaye comme gis na ku ñu nii ngay def rek moom jàpp na ni portable nii rek waaye xamul teg te moo ne boo ko jotee mu teg ko fii loolu lu garaaw la moo lay wax ni xale bi idraak bi mu am idraak bu garaaw la mooy mi ngi viser mi ngi gis. am na yooyu yooyu jur waru koy def ci kanamu gone gi liir bi di gis lu mel ni jigéen ñi nga xam dañuy taasoo ko fecc seen kanamu doom xale bi di gis lu garaawandoo parce que lu dafay kolewu ci xel mi ndax xale bi xel mi ñorogu toggoogu ba ñaw waaye yëgal lu ñëw rek ay yow xel moo xam dara dugub bu jëkkee xam nga lu ñëw koy dafay sax daal ndax dara boobu faag dara gis nga de moo tax borom xam dañuy wax ni ci wàllu yàq nit nit ki buy def lu baaxul ci lislaam sax moom na ko bàyyi bu ko mënta bàyyi sax moom nëbbu nëbbu xale bi pour moom mu sauver xale bi parce que saa bu ko gisee même bu xàmmeewut day jéem a def ñii gëstu ci wàllu yar defe naa mos naa leen fay nekk li ci benn dars benn maire boo xam dama doon jàngale ci école am ay jamono yàgg na li may wax mat fukki at ak nangam muy daa ngaa bu sët bi xale bu ndaw boo xam daanaka ci jàng dox la toll nee na xale bi daal di fakkastalu maam ji ni ko yow jugal waay ñu nga yambaree ngay xoole ba daan maire bee ma nettali nee na ci ëllëg sa moom yàlla def moom moo fakkastalu daan sët bi ni ko waay maam su ko waay nga yëmb rek di xullee ba daan waaw parce que loolu la loolu lañ ko waxoon démb moom jàpp na ne ku ko teg salu daan rek jugal ni nga yaa xullee ba yemb rek moo tax wax yu garaaw yi nit ki war na koy bàyyi xel ci doomam bul ni kii mën a gul a wax bul ni kii xamagut déedéet xale bi mu tàmbalee lekkee càmmoñ wala yooyu yooyu yëpp dama koy junj rek ishaara am nay buntam spécial waaye bokk na ci wàllu yarit nit ki ni muy dëgtal doomam lu lan moo tax bu juddoo ñu fexe dëgtal ko alquran wala nodd wala yu demee noonu parce que loolu njëkk tàbbi ci boppam waaye xale bi ah foo ko fekk ay xàqataay ak i mokkee ak waxtaani reetaan ak yu am na benn jigéen boo xam ba rafaxa dañ koy nettali lii ci jamono ji ñuy dund la am jigéen joo xam ne doom bi comme ñaata la ñox ñetti at la am juróom ñaari at xaw ma mokkal alquran xamatu daal at yu néew la ñetti at loolu xëy na ko wax jibrin ajibin am waaye bi ñu laajee yaayam bokk na ci bi mu ko ëmbee da doon déglu alquran foo ko toll doon nangam yooyu wallahu aalam mën naa def jeexintal ci gone gi min xaysu badri aw la badri moo tax yu mel noonu tamit yu mat a bàyyi xel la way jur wi jéem a sonn ci gone gi bul ni kii gone la rek ah amul problème mën naa def li may def fekk xale baa ngi gis waaye li muy gis moom jàpp na noonu la fan yi passé maa ngi déglu benn journal rajo ñu ni benn benn enseignant mu ni dafa seetlu ni xale yi saa bu ñu leen joxee ay exercice ay dessin xale bi affaire góor ak jigéen lay dessin lii rajo laa ko déglee nag xale bi affaire góor ak jigéen lay dessin léegi bi enseignant bi demee ba seetlu loolu xale yi kii laa jardin yii de xale yu jardin yi nga xam ñoom ne la ñuy dessiné loo affaire góor ak jigéen lay dessiné bi loolu amee ñu daal di laaj xale bi enseignant bi mooy wax nee na dafa laaj xale bi bi mu ko laajee xale bi mu ne ko moom bu wàccee ñëw ci kër gi papaam ak yaayam film pour porno la ñuy teg foofu léegi su ko defee dañ leen di wax eh jugaleen fii xale bi seetaan lii nee na bu ko defee ñu daal dem làqatu ci ginnaaw fenêtre ba di seetaan mu ne su ko defee buy root ci dañuy gis kaset bi ban la mu ne dañ koy bàyyi ba mu xëy rek ñu daal di ñëw ñu ne ñu daal di koy dugal di ko seetaan lii maa ngi ko déggee ci rajo bi pour wan nañu leen yu bari yoo xam ne yaa ngi koy ñàkk bàyyi xel fekk lu garaaw la mi ngi yàq yaru xale bi da ngay dem ba dugg ko jub fekk xaj ñu yore daara defe naa xam nañ ci dara léegi gis xale boo xamante ni yow da ngay yaakaar ni kii moom sa waay ah fan doon moo ñëw dëgër bopp fa jub fekk loolu lépp sàggante ak ay way juróom la beneen bu bu bu sew boo xam ni damay arrière tuuti boole ko fi ma toll mooy gis nga yaay farlu ko yaay ak nangoo sëyam farluk yaay ak nangoo sëyam dafay def jeexintal ci gone gi léeg-léeg yarkat yi xam nañ loolu am na suma mbokkum jàngalekat moo xam ne nee na benn jigéen da ko indiloon doomam xale bi moom sa waay mënta dem fenn fenn fenn muy gës ay gëstu bi mu bi mu gëstu ba gëstu ba yegg fii may bëgg a wax mooy yaay ji nee na ko sa waay kii moom jarul ngay sonn ci mu wax dëgg yàlla man yëg naa ni man sëyoonu ma bàyyi te xam naa ne boo demee looloo ko jàpp mu ni yaay jéeg wax loolu loolu day def jeexintal ci yaru xale bi mais mën mën nga bëgg mu jàng mu yaru du yaru fekk nga fekk mu jàng fekk su borom moo la tàmbalee loolu moom ulama tarbiya dem nañ ba turbe ko moo tax gis nga nangu jigéen dafay feeñ ci doom ji waaye ñàkk nangoom dafay feeñ ci doom ji fa misdaaqu dalika wal baladu tayibu yaxruju bi izni rabbi wala di xamu la yaxruju illa su ko defee kon ci loolu ci lay tënkee ni jigéen ji ci boppam la yëg ni yar bi foofu tàmbalee sore na comme fi ma junj waaye nag ci wàllu nàmpal gi na ci sonn jox xale bi mu nàmp ba doyal ndax loolu kat amal na la ay njariñ yow en tant que jigéen ji waaye njariñ yi mu amal xale bi moom akbar wa akbar beneen bi ci des mooy xale ci dimbi boppam su fekkee tollagul yenn âge yi ci nàmp la toll kooku kenn du ko yar comme ni ñuy waxee yar nii comme li ma wax sànq jigéen kii ni mu dëgëree bopp wala xale bu tuuti boo xam ne sa waay ñaari atam matagut muy jëm ca ànd ba nga dik tay li ngay def loolu kenn du ko def xale xale bu toll ci ñaari at loolu kenn du ko def même bu jëmee ca ànd ba même bu jëmee ca ànd ba mën nga koo yar benn yar bu dul dóor tey boo jëloon sa loxo dem teg ko am na ko boo ne ko teg ci wàllu yar donte loolu du gën a yëpp lañ koy def it nag tamit tey bi ne am na ko rek boo xam boo ko defoon booy dem muy essayé di jéem a teg moo tax ci yar wallahi mbokk yar dafa jafe beneen bi ci des mooy kii dafa réew kii dafa nàngam gone goo xamante ni dafa tuuti tollagul ci yenn at yi wax dëgg yàlla dafa réew dafa naqari deret dafa nàngam yooyu kenn du ko wax ku ne beneen bi ci topp mooy jigéen ci boppam ju la gën a xat xol moo lay gën a mën a muñal gone gi nàmp te it loolu day jur een nag ñu bàyyi ci xel di nga bëgg yar yar gone gi gone gi du la bëgg fekk yaa def li tax bëggu la fekk li tax bëggu la mooy xanaani ya xanaan gi war a am ci muy cofeel gi war a dox diggante yaay ak doom loolu doxul ci sa diggante ak moom ah gone goo xamante ni ñëpp jaay rek nga daal di koy xët wala lu ñu wax rek nga daal di koy caw yooyu sabab lay doon daf lay een bokk na ci màndarga yi lay wan ni een na la mooy mu lay wax ba sama bu sama baa ko ñëwee dinaa la boole loolu saa bu la ko sa doom commencé wax rek échec nga ci sa ci yàlla yii mbokk yi danay sew sew yu mat a bàyyi xel la su naan su sama papa ñëwee dinaa la boole wattu loolu na dakk moom parce que bu commencé dakk rek lu mu nekk nekk nekk gone yëgal ni mi ngi tàmbali een bu mu lay commencé een kon yii ay yëf yu sew sewaan la yoo xam yu mat a bàyyi xel la te léegi rek ñi ngi ci xale bi diggante fi mu juddoo ba fi muy amee ñetti at nga xamante ni foofu daanaka njàngum dox ak njàngum wax ak nàmp moo fa nekk te am na yeneen yu ci des yoo xam ne laaxal la dina yegg ci dars bii di ñëw kon loolu mooy bind bu njëkk bi am na yeneen i bind yoo xam ne ma nga ca gannaaw nga xam ne nag fa la ñuy commencé nag di yar xale bi ndax diggante bi ma wax ba ñetti at mooy fii ma doon wax yépp nga xam ne xale bi fer na naam te ak feral tamit nu ngi koy defee ndax ci lislaam ñu bari comme dañuy jàpp da ngay jékki-jékki rek ah daal di xëy ni feral naa la Sénégal ni ñuy feralee moom daanaka ferlu ndox dëgg dëgg dëgg dëgg gone koo xam ne ween la am ween la xam nga xëy xëy benn bis rek nga ne ko fa déedéet ak uslubu tadrij yi ngay def ak xale bi xale bi daa ko nàmpal vingt nangam fois ci bis bi wala quinze nangam wàññi ko ñu dem ba mu yàgg nga wàññiwaat ko ñu dem ba mu yàgg gis nga bu yàggee sax amaan na xale bi su njëkk a génn wenn foofu waaye déedéet xale kenn du ko xëy xëy benn bis rek léeg-léeg nga dégg sax ñu ne su subaa nga yóbbul ma ko ci àjjuma ci bàyyi jiw mu feral la ko feral sax amul ci lislaam amul feralaate amul amul sax déedéet kon yooyu mbir la yu mat a bàyyi xel su ko defee nag dars yi di ñëw insha allah dinañ ci am sifaatu murabbi yarkat bi nga xamante ni moo naa wéy ci yaram moom nan lay mel ban rôle la bàyyi am ci yar bi ban rôle la yaay am ci yar bi ban rôle la environnement bi ngay dund am ci yar bi fan la xale yi toll ñu war ko mën a gëdd wala arsale ko fan la xale yi toll nga xam ne dañ ko war a dóor ak foo xam ne kenn waru koo dóor am foo xam ne xale uslubu neexal digaate ngay jëfandikoo mooy soo defee nangam dinaa la defal nangam parce que loolu ci uslubu yar la bokk waaye day fekk la nga ko waxit nga di ko def ndax bu dul loolu yaa ngi koy tàmmal wax lu dul dëgg ala taal loolu ay bunt la yu yaatu ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq te dimbale ñu ba yii mu bañ a nekk yoo xam dañ koy jéggi rek mu romb waaye ñu mën ko jëfandikoo ba fañ bëgg a yegg yegg fa mooy yar nit ki ba mu nekk ab jullit boo xam ne ku taxaw temm la ak yar yi nga xam mooy yari lislaam di yari sunna yàlla borom bi defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain